yor yor yéen observateur politique waaw seetlukat yu bëree bëri daal la ñu jàpp ah mooy électorat bi ña nga ñoom ñoo wataloon Ousmane Sonko day fa ñu nekkoon juguñu fa de déedéet ma suba suba suba bu ñu tëggaatoon élection yooyee ñu votelaat Ousmane Sonko laa la wax ah, waaw waaw Ismaïla Diallo député day waaw yéen a kaa ngi nee na tontu na Thierno Alassane Sall ah maa la wax xaw na koo rey réew mi ko tijjee ne de la cybercriminalité ah Cheikh Yérim Seck day garab yi nañ ko waar day cybercriminalité maa la wax loolee les ko yéene kaa ne yi day mi ngi mel ni tulleeg man la laa lay wax nii daal di nay taxar naa si dee déedéet kay bugaan ngay dali mi dee ak Cheikh Yérim Seck jéegi Joob bu rek leen tëg bët la wax waaw waaw dama la Cheikh Yérim Seck moomee mujj nañ koo téye démb daal di koy garab yi Joob moomee dañu koo libéré de waaye dañ ko ne nga dellu si waat moom bugaan ngay dali moomee tey ko woo sur saane justice si day waaw fi mu nekk ne leen mbir maa ngi mel ni kon tox su mën na saañ d'Italie dama ne la Cheikh Yérim Seck moomee garde à vue nañ ko Bougane Gueye Dany moomee ma ngi ca néegu sarale ba laa la wax ca cybercriminalité waaw jéegi Joob moomee déglu nañ ko démb ba ca guddi guddi laa wax courant moo mujj coupé yow koy déglu rek dama ne la gis nga Cheikh Yérim Seck mi xam ne koy toppee waaw kaddu yi xam ne kon daal ni koy yëkkati nag kon ca CTV daal di dëggal ne Jérôme Bandiaky waaw daa jënd ngànnaay xam ne day benn kilifa goo xam la nekk ni lée kilifa goo ga moo ko ko jaay waar di Italie la ilaha illallah waaye Cheikh Yérim Seck day day garda bi nañ ko waaye xam nga lan moo doy waar la ñu koy toppe la ñu koy toppe daal mooy nee nañ ko division de fausse nouvelle li nga wax amul waaye jéegi jóob day démb waaw démb ngam ngi mitti na lool ci loxol waa division des investigations criminelles yooyee enquêteurs yi dama ne bañ ko na convoqué ci reddition des comptes lañ ko toppee alal ji nga xam ne kon dañ ko koo waaw waaye déglu boobee démb daal continué na ba ay booru vingt heures ci guddi waaw courant defaat nag interrogatoire am boobee ba dix heures ci guddi di vingt deux heures ginnaaw ga nag lañ ko libéré sur convocation la de day ñëwaat de waaye responsable la APR boobee di jéegi waaw jàppal ne nag dana dellu soit laa la wax wal fajiri ne waaye dama la convocation yu bëri yi nag ndax délit d'opinion ah waaye lii dellu te ginnaaw la la grand bond en arrière ar détail Bougane Gueye Dany ne ko pour nga éliminer ma jàppal ko loolee source a ne ko may ma na juróom benn doomu aadama yoo xam ne dañ leen a convoqué wala ñu garde à ñu tëj leen kaso ci wax sa xalaat di délit d'opinion ci juróom benn weeru yàlla kase waaw Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ré jël na kubba jël na kubba remporté na kubba jëlaale na faf sax yeneen médaille yëpp laa la wax moo jël médaille d'or médaille d'argent ak bronze ci jàppaate mar d'Italie Alioune Tine ne xam nga ci nit ñooñee nga xam ne dañ leen a day jàpp Camara mi lée nee nañoo daa xaawi war ma wu njiitu réew mi offense au chef de l'État Alioune Tine dama ne tojaange yi nga xam ne kon moom la ñuy gis ni lée daa ragal lu dee c'est inquiétant te man nag jàpp naa ne ko gis nga délit d'opinion dañu koo war a génnee ci suñu code pénal bi laala wax aa Alioune Tine ne waaw mais yow ci démocratie effectivement mais am na ñoo xam ne dañ naan président de la république day kàcc mais mënuñ cee convoqué nit la lay wax nii njiitu réew mi waxul dëgg jàpp naa ne nag organisation société civile yi war na ñoo nag daal di parce que lii c'est pas normal laa la wax Fadel Barro day ne dama ne c'est du Macky lii daal mooy li fi Macky doon def rek benn rupture amu fi laa la wax waaye déet waay Thierno Alassane Sall day ah nee na ñi xam ne maanaam ñoo wàccoon ca assemblée nationale bële roose fay saaga ba maara day taali laa la wax jëfandikoo presse bi lee di dajee ka daaneel ak a dóor ay honnête citoyen di leen troxal ñooñee tey ñoom ñoo ne kenn du fi lee terreur opposant Diomaye ak Sonko yi lée gaa ñi day safara lañ wàccee seen kaw laa la wax maar day taali waaye jàppal ne élection député yooyu Alioune Ndoye dañu ko zappé ci liste Amadou Ba baax maar day taali bés bi la journée yàq wa génn ne la matraque aa gaa yi kay maar day taali Kader Dia boo sàgganee wax yi nga xam ne da koo du dëgg day maar day taali Cheikh Yérim Seck mi lée garde à vue ko Bougane Gueye Dany mi lée day jilee lañ koy déglu waa sàmm sa kaddu day nag xarlu nañu taxawaay ne moom la Sonko Diomaye Diomaye weer lañ bëgg a tëj seen i gémmiñ la wax ca jamono jooje Sud Quotidien nee na en daal yokku de dund gi nekk nii ni mu yokkee maar day taal le de la ménagère njëg ya ca boppam kon fi nekk nii lay yokku na ni nguur gi day def nañ seen kéem lay kattan laa la wax mais dara 24 heures yéene kaa ne situation politique bi day fi nekk nii ci impasse la ne ah waaw waaw président de la république la premier ministre la ministre la directeur généraux ñu yoree woon suñu alalu ak réew mi lée ak réew mi ci boppam ah yéen a kaa gi ne yaakaar gu tas ay mbirum bêtise tojaange li reste l'injustice le chemin foutisme yéen a kaa gi ne ak gàcce la honte lii daa ruslu sax moo tax Cheikh Diba day daal dinay yëkkati nag ay kàddoom daal nay wax aha waaw waaw yéen a kaa gi ne la ñu doon laam-laamee naan salaire u agent dañu ko yokk waa nguur gi ci boppam nee nañu waa PIT li ngeen wax du dëk te ba mu ñaar lañ doon ñangu mu ñaarati kay mooy kàddu yi Cheikh Yérim Seck yi waaye libération kaay nee na Cheikh Yérim Seck day kàddu yooyu nga xam ne moom la waxoon ca sa TV waaw ca kanamu enquêteurs ya day ca la jaaraat l'ancien journaliste de Jeune Afrique persiste et signe nga ni maa la wax lii Cheikh Yérim Seck delluwul ginnaaw de déet déet yéen kaa gi ne ay waaye auditu contrat affaire Mange Suez Sen'Eau ndekete mbir ma tojaange koo xam ne kon moom moo fa amaar di taali yow 2021 rek waa Sen'Eau li nga xam ne perte nañ ko day ndax taxawaayu groupe Suez koo gee toll na ci 3 milliards 950 millions ilaha illallah ay juróom-ñeenti convention yoo xam ne alalu kër ga moo ko yàq wàllum politique boobee direct news nee na Moustapha Diop day jàpp naw dat day aha teddal liste coalition farlu ci élection député yi lée moom Moustapha Diop maa la wax lii ma nga ca 38 département ak ja soraaba te xam nga ne Moustapha Diop moomee moo fi jëlee woon kon waa parti socialiste te Louga nga xam ne Aminata Mbengue Ndiaye nekkoon kon foofee daanaka lu tolloo ñeen fukki at ak njàmbur te ñoo ngi fàttali ko ci élection locale 2022 yi lée gaa ñëpp ko sodde Mamour Diallo Aminata Mbengue Ndiaye ak seeni allié Moustapha Diop gañe waat leen le quotidien yéene kaay ne waaye yow dex gee nga xam ne moom génn na ca kaw lalam ba wutali nit ña dande mayoo gee amuñu ko leen waxal de aha te lii nag mën naa indi ay gàllankoor ci lu jëm ci wàllu wér gi yaram askan weeg lekk géeg yooyee yor yor yéene kaay ne coowal la Diop day ak Mohamed Dieng waaw bu woon xbet woon tey nag ma wax leen kan mooy Mohamed Dieng moomee woon xbet nga xam ni ba mu jugee ca woon xbet goo gee mat na fukki weer lii mandargaal ne kon coowam li ca Mohamed Dieye deful dara lu ko waay wax tooñ ko liggéey liggéeykat la yor yor yéene kaay ne école nan seen di école 15 gii la jàngee di dem defi Baobab sixième dem defi BFM banque islamique amee ji baccalauréat Baobab groupe scolaire Baobab waaw am bourse d'étude ci Russie oh jaar CSA e jaar PUDC yëngu ci wàllum BTP yéene kaay Serigne Saliou Gueye gi ne boo demee nag ci lu jëm kon ci wàllum social Mohamed Dieng mi lé créé fondation Mohamed Rasoul Dieng ak monsieur Wading moom la mu def ca wàllum social googu waaye xanaa gars yi dañoo fàtte intervention chirurgicale bu jumelle siamoise yi la ci weeru juillet 2024 nga xam ne koppar gi demoon na ba toll ci 3 millions d'euros yor yor yéen a kaay ma yor samay kaddu dee les écoles yéen a kaay ne Alassane Ndour day ci match gaynde yi wax na de nee na jeu ci boppam moo amul productivité de jeu entraîneur bi na fi nekk nii war am beneen formule bu bees joueurs itam jël seeni responsabilité suñu match beeg Malawi bi di askan wi sur quotidien ne yokkaat na contrat wa Aliou Cissé bii nguur gi dee bañ nañ nguur gi dee bañ nañ ba tëdd ca suuf <laughs> nguur gi dee ak lu mu bañ bañ bañ bañ bañ bañ bañ bañ bañ nañ jàpp ne suul gaz du ko teree xeeñ daw yi taxulaa Sonko jomaay te jomaay mooy Sonko boo paree ma ne la alaaji tëjal